boo déggee ni manager am waxee da xam ne am na benn information parce que manager bi dafa ne l' mooy dina ñëw toog fii après demaat moom information boobu mais moodu tout d' abord. liy dëgg mooy mbër yi seen bopp ñoo respecté wul manager yi. nañ ko wax te mu dee. manager yaa ngi nii toog di ma dégg respecté wu ñu leen. man maa ko wax man Serigne Fallou Luc Nicolaï dama yàgg ci manager yi nañu xoolaat mbir mi CNG convoqué ñëpp. ñu toog régler de la lutte. voilà parce que lii du yoon Abdou mi xamul fu mu toll fu Ama balde ne xamu ko bu la ko waxee moom xamu ko mu ngi nii toog xamu ko nañu waxante te c'est le manager. jërëjëf Modou boo tout d'abord nan nga jàngatee événement bi nan nga Ama am nga déception. waaw encore ñëpp a ngi lay dégg baax na. lii defe naa du benn du ñaar du ñett am naa fi combat dem ba Kolda signature de contrat ki ma doon bëri ñëwul mala de guerre bu mujj Louga am nañ combat ma dem ba Louga moom it ñëwul comme li may wax rek bu ñëwoon day gën a neex te li ko tee yàlla nekk jàmm mais contrat mu ma indi ma gars yi ñu ngi wax mbëri mbëri mbëri mais du ñëpp wax dëgg yàlla man lu ma si ak promoteur dinaa def suma kem kàttan ba jëm ko rempli respecté xam nga ba taxna dañ koy ñaan rek li ko téye yàlla na nekk jàmm mais dal doon na gëna neex xam mu. mais am nga déception. lan nga doon wacc tey ci face à face bi par exemple. so comme ni nga ak mom lan nga doon wacc non dañu am combat signé promoteur bi contrat yu lèr tey war jaay suñu événement tey contrat yi war nañ ko respecter ñew waxante xam nga supporter yi contane ñi sétane contane ñu jaay bis bi wax deug yalla loolu la doon loolu mom loolu moo ma indi. mais comme amul rek li may wax lu ko tee yàlla nekk jàmmu te xam nga bis ba incha allah la cinq mu ñëw ak jàmm yàlla may ñu ndam ci kawam rek bu soobee yàlla. nan ngay waajee. waaw nu ñuy waajee comme ni ñuy waajee chaque fois rek ñoo ngi si waajtaay ak ñu ñuy àndal muy écrire ko énergie de passage damay nuyu sax ñoom père Ndiouké ñi ma àndal Ibou sama mag sama ménagère As xam nga di nuyu waa Rock yëpp coach yi ñoom laat ñu fii ak ñoom Conke Sil waa Rock énergie yëpp di nuyu wax daal man contrat moomu fi indi. xam nga ma def li ma war a def mais bëggoon neex mu ñëw teew fii mais li ko tey yàlla nekk jàmm bis ba mu ñëw ak jàmm yàlla may ma ndam ci kawam incha allah. ñi la bëgg lan nga leen di wax. waaw di leen wax rek di leen euh, jéggalu encore parce que li may wax ñi ma àndal di ñëw fii bari na trop trop oto yu dul jeex la. mais dañu ñëw xam amuñu accès fii mais lépp rek ci respecté contrat lu ñu waxante ñu ñëw yeeg si ñun remplir suñu contrat di leen masawu baax a baax di masawu parcelle bi ma jugee ni te parce que bu ñu jugee biir bi bari da ngay sonal dëkkandoo yeeg lu ne xam nga Lac Rose bi ma dëkk tamit euh, ak Yoff nuyu waa ñàkk ñëpp di nuyu quatorze régions yu Sénégal yëpp di nuyu suma dëkk Thiès Fandène suma dëkk yaay nuyu waa Taïba suma dëkk papa di nuyu sama mbokk yëpp fépp fu senegal nek dal ñu ngi lay nuyu di sakku ci yow ñaan di wax senegal yalla na fi yàlla def jamm di nuyu sama père bi rom diko ñaanal jamm yalla defal ko tawfiq ah di nuyu am diko bala ñu ki war rek ñu def remerciement yi comme suñu adversaire ñew waaw baal ma baal ah. ma baal ma nag. waaw non damay ñëwaat ci yow. lu ñu waron jital moy sponsor bi muy KPI. wa parce que tay bu promoteur mëna fay ay millions sponsor mo ci jàpp parce que amana promoteur bu ko resoon ci béetéer yi wala yoonu rek du yegg fu mu bëgg yegg ba tax na dañuy ñaan ñi fi nekk ak téléspectateurs yu ñuy seetaan yëpp ñu dem télécharge ji kape yi parce que suñu yëfu bopp la ñun ñoko mom kiko mom di nit ku baax di taxaw Sénégal li nga xamni lu ñu bari xamul man day dégg ben problème que nga xamni ayer la xamna ni xamna ko rek mbom diw ci lu mu nekk woo man ma ñew def teranga dem joxol ma njabotam te yalla xamni sa xamugo nit ku baax la lu ko waaye defal Sénégal nga ko defal parce que li mu am Sénégal la koy def te bu ko gañee waat fii la koy investir ba tax na damay ñaan ñi seetaan ak ñi fi nekk ñëpp ñu dem télécharger ci KP ci Apple Store wala Play Store waaw Sénégal jëm kanam. Alaaji Thierno noo gisee eh, événement bi ak ñàkk ñëw ama non dinaa jox Basirou Babou dama bëgg nga ñëw nga analyser ma ba pare. cër yi cër yi moo bari. promoteur waxee parrain wax CNG wax mu am nu promoteur waxante ak manager yi Bassirou Babou di mag nefi